I'll holiday. الدب وقيل إصحاب هذا قول من فوقه أن ذبح في إيليا نهجله بالتقيم ولم يدر المولى مبتهلا أو من رجل لقد توصلت يا رحمن يا في يا مغنيا رافعا الأوزار والنقاب بصعاب way الفضل من عرفاني كاس أنا تيجاني وأنا تيجاني واي آه ولا في تنت بأمر تيجاني في أمر تالي بشيخ waaw ah, bu sëriñ bi ñëwee naa ne ko teelal ñaan te dem ndax fii amul taalibe cheikh ana taalibe cheikh yi taalibe cheikh yi leen taxaw waay waa ana tiijaan yi kii moom tiijaan la gis naa fi benn tiijaan bu góor ak benn tiijaan bu jigéen cheikhul tiijaan الجلاس بالله ومن معبة ديني وخلة عقلي وروحي وجلاسي وجاسي ومضى ابن نبوتي علي ابن بلا اساسي شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه ما حقيقة الكون شيخ تجاني معنى سليمان ما هو فيض إلهي بلا لمس ولا بان جئت تغيظ الحمد لله قام الشيخ الرباع وخير الوجود لدي أعلى شغتي جنزي أنا صبي برم نارج صبي بارو شغتي جنزي أنا تنتي بالأمر كبك برم نارج مول بايو زجعاني بزيد منصور قد من الواو ما لم يعنيه أحد أحد في دورة دورة الشعي مسكور منصور سلطان الملك زيفي سيدنا عادل sabaay borom daara gi nee na baayam waa na soppay borom daara ji wala fi amu koo fi sax zawrul xalifati waaw والإله أعلى سبعين بايم يغني مريدك ما يرضى ويهواه أنا نسي جنو بك برم دارجي وادف سبعين من زاره بصليب قلبنا لمنا فاسأل بي كل من taraahu yaxshaahu na ñëpp def ni ñu màggal borom daara ji man saaroo qad raxal bi shaati min zamanin yafub bi ma nawaa min shaybi nu'maaru ana ñi si gën a bëgg borom daara ji daaru yi daraja jeeg limousine beeg ala daw ne borom loo teg ma dikkam ma dem Serigne Mame Malick sa Serigne way na Serigne am. Serigne bi ayuha al muridu واعتصما بحبلي تنل التوفيق ترضى صباينا فلوس بي تنل المفاضة عايز من لعب بالأولياء يغفر بمن حاول بشرى لكم خير قوم برم دار جنينه yéen ñi bëgg Serigne Babacar Sy texe ngeen am ngeen texe bushra lakum xayra qawmin niltuma wadaran yihdi murida ila jannati mawlaaw ku fi gën a bëgg borom daara ji Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour jugal taxaw yëkkati sa loxo ni ma man la cheikhuna da waqtana bi hadid umarun من حيث ما اقتبسوا من نور فتواه ترى البلاد كجور جنبر غفوت جرف سال بابل وقبل تسعى ليقياه خنا تنتبه أو قصب بندر baax ci jakarlo ak sa jëm ji di ñaan yalla subhanahu wa taala yalla na yalla fiq saw fan yalla na nga dem ba doon sa khalifa ak mam insha Allah rabbi te ngan gi yalla sax insha allah ñu ngi la ziar bu baax di kado yi ñu yëkëti nak ñu koy yëkëti ci turu chef de village bu Mbajaar muy sunu mam abdullah mam abdullah jaay ak imam ratib maam Cheikh Omar Ndiaye ñi ngi lay dalal ci dëkk bu tedd bi nga xamante ne sa dëkku maam la sa dëkku baay la ñi fi nekk ñëpp di say taalibe di sa njaboot kon ñi ngi lay dalal bu baax a baax a baax di la wax ahlan wa sahlan noonu la ñuy dajale dalale mbooleem kilifa yi nga xamante ne rek ay kilifay diine lañ te yàlla dogal ñu rot ci jataay bi bëri nañu fi jaar lool ci bëccëg tey nag kenn ku ne xam ne ne àjjuma ji moo ko waral waaye ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm leen yónnee ay nuyoo ak i ziyaara di nuyu sa mbokk yu tedd yooyu nga dendal jóge ca xadara bu màgg ba di xadara maam aliin ba radiallahu taala anhu sëriñ xasan ak uh, sëriñ Baye Saalixu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di ziyaara bu baax sa doom jooju nga dendal muy sëriñ Mouhamadul Moustapha ja di doom ci sunu Baye Alxaaji Maodo Dia di jëwrin ci kër Seydi Seydi Jamil bu Faas sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal di la wax ahlan wa sahlan dina la wàcc waayu kilifa yi nga xamante ne ñoom nga bàyyeekoo ca Louga ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp waaye di ziyaara sunu papa yee toog yëpp ñu ngi leen di ziyaara mbokki coowoor yi ñu kenn bu ñu limee rek ñu matal kon dañuy wax ñu ngi nuyu mboolem koo xamante ne rax si nga fi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ndax kàddu yi du mën a gudd ndax kenn ko nekk am na ne kilifa gi tey dafa xate ñu bëggoon rek gàttal kàddu yi bu ko defee ñun ñëpp moo ñu fi indi moom la ñuy déglu eh, ñuy beral nuyoo nag sëriñ bi kenn ci sa njaboot muy sunu maire Assane Seck nga xamante ne moom nga dendal sëriñ bi ñu wax la ne monsieur le maire depuis ñu commencé jàpp bis bi ba léegi ñu nag moom ñoo bokk comité d'organisation bi réunion yi ñuy def Dakar yëpp bu ci nekk dañ koy woo laaj ko fan la tollu ci moom ci organisation bi ci lépp ñu wax la ne la ñu wax la ne la euh, commandant brigade gendarmerie bu Kébémer ci suba ba léegi ñu ngi ci liggéey bi wax dëgg neex yàlla yombalal nit ñi lépp macha allah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax di ziyaara tamit euh, le maire euh, Assane sal nga xamante ne rot si woon na fi di maire Kaneen Diop macha allah fii la yendu yàlla dafa dogal am ngant mu dem léegi waaye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ziyaara suñu mbokki Louga yëpp teewoon nañ di la wax sëñ Mouhamad Lamine Sall ibnu sëriñ Abbas Sall teewoon na fi waaye bi xadara jotee dafa dem Louga ndax dafa am lu mu fa war a jiite ji macha allah ñu leen di ziyaara ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn di maire di la di la fedd li sëñ bi cant goo xamante ne ñu ngi koy jama jëmale ci waa dëkk bi yépp di la xamal ne waa dëkk bi dipp ñu jàpp bis bi ba léegi ñu nag ñoom ñoo bokk bis bi góor jigéen mag ak ndaw ñëpp def bis bi seen bis macha allah yenn ci togg yi yenn ci berndeel gan yi génn seen i kër macha allah ñu ngi lay seedeel na nga defal ñu ñaan dëkk bi amuñu seen fay ñi ak dëkk yi ñu wër yépp amuñu seen fay léegi rek la GIE Mbadiar di jigéen ñi ñëw andi seen i teraanga ngir teral sëñ bi ñi ngi ñaan ñoom it lu ñu man ren yàlla nañ man déwén lu ko ëpp allah ñi ngi nuyu ñëpp daal bàyyiwuñu kenn mag ndaw jigéen góor ñëpp nuyu nañ leen ku ñu tudd nit nga xam ne tudd nañ la suñu xol incha allah kon dañuy commencé programme bi rek dañuy jox imam bu ko defee ñu wax la ne la sunu maam al imam Mansour Ndiaye bu nangur mi ngi ni teew di kilifa ci xaaji mbay ñoom di ziyaara tamit suñu bàyyi Maodo Diop macha allah moo jiite xadara bi tey ñu ngi la koy seedeel macha allah di beral tamit ku moo xam ne fàtte naa ko fàttewu ma ko muy Serigne Sam ndax saam sama xarit la bu yàgg yàlla dogal soxnaam di sama xarit eh, mbaax gi muy wax ci moom la nekk moom mi bis bi bu ko jàppee daaw dafa ñëw ne ma bépp bis bu ma jàppoon ci cinquième jour benn bis rek laa ciy am mooy bis bu bi incha allahu rabbi ñu ngi yàlla yàlla yàlla defal la jàmm li nga bëgg ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko kawee yàlla yàlla defal la ko defal ko sa njaboot di nuyu tamit sëriñ Modou fay dafa ko waree boobu ba léegi bàyyiwul ñu wëllëre boo xamante ne wëllëre alxaaji bay la waaye wëllëre dëkk bi la sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax ziara euh, tamit alaaji Seck nga xamante ne mooy sunu waykatu xadara ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziara di ziara ñëpp daal bàyyiwuñu kenn wax dëgg ne yàlla ku ñu limul rek nga xamante ne xëy na xelay fattu rek waaye bëgg nañoo lim ñëpp incha allah kon dañuy jox imam rek mu def ñaan bu ko defee ubbi jotaay bi bu ko defee ñu jox Assane Seck maire commune Bandañ mu dalal ay ganam ndax jàpp naa ne ñu nekk ñëpp tey ay dalam ay ganam lañ ndax mbir mi weesu na léegi mbirum dëkk waaye mbirum gox la gox bi yëpp ñoo ko bokk kon boo fi nekkee jiite gox bi yow yaay wax ci turu gox bi yëpp dalal gan ñi incha allah bu ko defee ñu jox maam ndax moom la ñëpp di déglu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa salim alhamdulilahi rabbil alamin Assalamualaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sëñ bi ñi ngi lay nuyu doore nuyu bi ci yow ci warma bi gëna tegg tera kersa gi gëna mag di la ziar eh, di la ñaanal di nuyu Imam Omar. Ndiaye di nuyu chef de village Cheikh Ablaye njaay di nuyu sëñ Mbay pend di nuyu màggi dëkk bi ñëpp ku nekk mën naa tudd sa tur ak sa sant muy góor muy jigéen waaye bañ a guddal rekk sëñ Moustapha ja ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, di am mbégte ci xamante bi nga xam ne yàlla dogal na ko sunu diggante tey sëriñ Assane Ba sama turandoo maa ngi lay nuyu di nuyu ah sëriñ Sam macha allah di nuyu ñëpp kàddu yi nag sax ma noon naa ñàkk waaye ren dama bëgg a seere rek loo xam ne at mu nekk dama koy bëgg a wax waaye duma ko wax xaw ma lu tax du ko wax waaye sëñ bi tey dama bëgg a wax rek ne ñi fi toog ñëpp di taalibe surtout taalibe Serigne Mansour sa waajur borom daara ji am naa ci moom loo xam ne néew nañu ko ci am nag loolu nag laa ne woon ren moom mun ma ko bañ a wax dama nekk Kaolack di fa liggéey ma gént ñu am délégation war a ñëw Tiwaawoon ñëw ziar ñu ziar bu pare ñu tàggoo pour dem mu ne ma déet yow moom doo dem ndax dangay toog dama lay ñaanal ñépp dem bàyyi ma ko mu téye sama loxo ci noonu ma yeew ma gént gi jaaxal ma lool teguma ca weer ñu ne ma léegi affecté nañ la Thiès ma ñëwee Thiès nag comme li ñi war a def dem nuy ji yi bi ma ñëwee ñu euh, sëñ Mansour Mbaye présenté ma mu ne nikk sama loxo tee diirub nit ñaa ngi wax ëpp na waxtu mu ngi téye sama loxo foog naa lool ku ko am bariwul nag diirub nit ñaa ngi wax man mi ngi téye sama loxo bi mu jëmee kàddu gi ne ma a ah, ndax ndax mokkal nga ma ne ko ah déedéet jàng bu ma ko de mu ne na nga ko mokkal waaye man nak Allah si ba may ñëwaat fi déwén day dana ko tari li am na ko si mom ah de lool nak sekk kenn du wax lepp mom lool dal mom rek la bëggona wax ren di nuyu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سمسد مودي ساتو باينو لا تنقضي وإباته وآياته ما أدل رسل فسيقون كل صوم وآياته صومون ومو صومون kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah mooy yonent boo xam ni ñi gën a yëg yàlla ñëpp yàlla missionné leen ñuy saaweel kan li ci yonent kenn ku ñoo ko sa message ci moom ngénte sa wàll te ñu doogul ñu koy ngénte ñu koy ngénte ñu koy ñu ñu koy dëj ngénte yi jeexagul te yi rafagul def la nii maagal maam Maodo si amoo morom dañuy turam ci Malick Pape Malick si bàyyam borom daara yi mooy woon saa baay ca ca ca ca ca ci ci toolu sëñ Babacar sa papa borom béykat yëpp mu leen bayroo na gaay jafal nga yàlla sa borom man maay seen tëtu leen salli si gal nga ko tàmbali ba tàmbale nekk di leer nga tàmbale classe bi gën na la puleer gi jaamu nga ko leen nii wala kii lay mun sàbbayal ak bindoon wala ñu gën a ko dogoon wala ka naroo ba mu jëm ci taaba ñi ma bu ko dem waaye na sotti woon yéen la ko dal waan ko wala la kala te doomu zamzam wa ka naroo xaay sakku kenn ba ngir keneen yamu te joo wàllu ko wala baam Abdoulaye tekkilu soxnaam wa ka ñaan yoon ba mu demee ba mu seebe jaay wala ko dama noppi juróom yaa ngi wala yi guddeem da mu ràññee wala ñu ci biir naan asamaan yéen teeroo asamaan lay ko teeroo te xaay moo tax sëriñ Cheikh nee na lawla nabiyu rasulullahi maa urifat xadaaratu saana idraamu lxurabaa ila diin lam yakun fala kaanat dunia waaw man mii maam da baax moo may dëkk ma jàngee teewoon nag am Habib may sama yaay jël Serigne Babacar may ñu ngi lay jox sa wàccuwaay euh, ñu ngi lay ziar ziar bu baax macha allah di nuyu nag mbokk mbajaar yëpp euh, di la jotal nuyoowu xalifa kër sëñ Alioune Ba di suñ pàpp Abdou Aziz Ba waroon naa teew fii waaye dafa gont Dakar léegi waaw moo ne ñu teewal ko. ñu profité rek dugal loolu waaye comme dafa xat ah ñuy def ñaan jàng fatiha ayatu kursiyu ikhlas falahi ak naasi ah ñu ubbee ko jataay bi te jox kilifa gi bismillah الذي يشفع عنده جاوز جناح من أيديهم وخلقنا وشأنهم العزيز الله أغسل ولم يكن لكم غفورا وشأن آخر مشكلة خلاص في على شيء نفصل فينا من نغاشر خلود الناس مالك الناس لا الناس مش خلاص اللهم صل صلاة لا ترد ولا تعد ولا يحصى بدائل الآن يا رازق تالي في أوقات ودود في سم الصخور من جحد إسلامنا فرجا خريبا عاجلا إسلامنا فرجا خريبا عاجلا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 di bokki mbajaar ak li ko wër di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi fi teew képp ku fi teew ñu ngi lay nuyu nuyub xol moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la ki nga xam ni tey dëkk bii di mbajaar ci moomeelam la bokk muy sëriñ xasan Seck nii lañ ko fi teewe woon ay at ci gannaaw ba daaw noonu lañ fi teega toogaate man ak moom yàlla nañ fi yàggatoo sëriñ xasan ñu ngi lay nuyu njaboot gi wax nañu ci yow dëkk dëkkin wu rafet ak jàppale ak bàyyi xel ñoo ngi lay sant ci njaboot gi balaa ngay tabax kër tànnal sa dëkkandoo ba pare balaa ngay tukki tànnal ka nga war a àndal dëkkin wi rafet na jàppale nga leen yal yàlla fay la di nuyu sëriñ Babacar Gueye gëléem bu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour teraanga ci gëléem la yem moom la jox Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour yàgg naa ko fee wax dama toog sama néeg yëguma ma jékki-jékki Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour yónnee ndaw li ñëw ni ma kaay wuy sa papa ma fëx ñëw fekk ko mu toog am ku mu toogal Cheikh Sidi Mouhamad su ni ma maam sa doomu baay bii de laa la bëgg a booleel moom laa la bëgg a dénk kii mooy mbay géey gëléem jaar naag moom fu ne defal na ma lu ne seeti naa ko këram parsel sagal ko fa sa doomu baay la sa wëllëre la bis ni tey boole naa leen ànd leen ànd leen ba fa soob yàlla moo xam ndax mu def ko nag xaw ma nag xaw ma ndax mu def ko lii daal la ma def mu ni ma ànd leen ba fa soob yàlla li sama aña ngi ñëw sax waaye déedéet mënoon naa bokk ak moom waaye jël ko ngeen ànd nga yóbbu ko sa kër ngeen añandoo ngeen waxtaan boole naa leen boobu ba léegi man ak mbay ñu ngi ànd Cheikh Sy seeti woon ko parcelle liggéeyam yóbbu ko fa mu am fa kër waaye fii la cosaanoo Cheikh Sidi Mansour diggoon ko lii yàlla sottalu ko ñu defal ko ko Cheikh Sidi Mansour ñëwal ko parcelle ñun ñu ñëwal ko mbajaar waaye itam ci ndigalu sunu kilifa ci ndigalu sunu kilifa ki nga xam ni tey mooy sunu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mooy sunu mag di sunu sëriñ di sunu xalifa baay di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Mouhamadinil Mansour moo ma jox ndigal ci yoon wii bu ma ni woon bul dem du ma ñëw na leer sëriñ Cheikh bu ma ni woon bul dem li may bëgg bëgg bëgg mbay ah ndigal moom duma ko teggi kon du ñëw waaye kon euh, sëñ Babacar sa doomu baay sa sa xarit sa lépp sëriñ Cheikh ak képp ku Cheikh si Mansour jaboote ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi feddali seen kóllëre yow ci gàttal daal ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñépp di sargal ñëpp gis nga ak kànd kànd ma ni kànd foor na de ah mani ni foor na de xam ngeen luy kànde masdar la mooy suxba boo nee boo nee kànd kànd masdar la mooy suxba mooy Kande kan ko defal mooy àndandoo kon kan koy defal tànn ko ndax moom lañ lay askane wax ma sa xarit ما واخ لا سديكو واخ ما سا خريط ما واخ لا سديكو امنا فما جيم نك امنا فما جيم ماني واخ ما سا خريط ما واخ لا سديكو واي كات با فا واخني عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي fa in kaana daa charrin fa janibhu suratan wa in kaana da xayrin fa qaarinhu tahtadi boo bëggee xam nit ki jikkoom bu ko laaj ni ko diw luy sa jikkoo jaru ko demal laaj ka muy àndal rek buñ la nee ku baax la jàppal ni ko ku baax la buñ la nee ku bon la jàppal ni ku bon la amul sax demal ma ñëw jarul nga dik ko laaj naan koy luy sa jikkoo déedéet laajal ka muy àndal buñ la nee ku baax la rek xamal ni kooka ku baax la bu ñu la nee ku bon la jàppal ni kooka ku bon la xam nga tey ah xaj xaj rek la wala déet xaj xaj yëpp a xaj yëpp xaj xaj la day bàyyi ba ñëpp tëdd minuit une heure deux mu nek ci mbedd mi ñepp nga seen ñepp nga seen nek teud ah xar yi teud nañu bay yi teud nañu mbam yi teud nañu ganar yi teud nañu tay ay mala lañu comme mom mom mu nek ci ci mbedd mi di di mbaw rek lu ne mu dugg ci ak di def yu kenn xamul lan ngay def bu la naree sonal nga jël xeer sandiko han ah xam wala déet da ngay jël xeer sandiko waye tay bu la xajrombe ñu ni xaj rek man nga jël xeer sandiko

Iblis maa ngi ci suxba ba léegi de man Iblis dafa juum juum gu mag a mag a mag a magal ba ko yàlla ne su jootalal aadama daf ko ni maa ko gën wa id qulna lil malaikati sujudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkaafirina yàlla ni ko waaw lu waral yow ma ni la sujootalal sama mbindeef bii nga bañ mu ni ko ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin maa ko gën ndax matière bi nga ma bind moo gën bi nga ko bind man Iblis danga nga maa bind ci sawara moom nga bind ko ci suuf sawara day symboliser lu kawe lu rafet lu leer suuf di symboliser lu ñuy dëggaate lu ñuy toroxal lu salte xamul ni dafa juum Iblis yàlla waxu ko su matière <laughs> foofu la iblis juumee iblis yàlla waxu ko sujjóotalal matière daf ko ni maa ko gën ndax ma matière ma bind muy sawara ndax ndax ndax iblis iblis jinne la du malaaka de iblis jinne la du malaaka li la koy xamal mooy malaaka yàlla daf ko bind ci nuur leer jinne yàlla bind ko ci naar sawara wa laqad xalaqna al insana min salsalin min xama in masnuunin wal janna xalaqnaahu min qablu min naari samum naaru samum boo ko déggee mooy sawara woo xam ni dafa takk takk takk takk ba xonq coyu coyu ba amatul benn saxaar moom la yàlla jël tibb ca bind ci jinne naaru samum min naari samum mooy sawara woo xam ni dafa tàkka tàkk xam nga sawara booy soog a booy soog a xam ba sa taal noonu ah day saxaar waaye am na jamono boo xam ne bu fa àggee ah dafay xonq xonq moom xal ya xonq xonq xonq ba amatul saxaar noonu mu xonqe noonu la yàlla tibbee sawara woowu bind ci jinne kon xam nga sawara li muy symboliser mooy lu leer lu kawe lu rafet mu ne ko kon matière bi nga ma bind moo gën bi nga ko bind fekk xamul ni li ko yàlla wax ni ko su aadama yàlla ak kànd kànd la xool xoolul matière kànd gi lan la fa ida sawaytuhu ونفخت فيه من روحي كاند كاند جي الله عندك كاند جي الله عندك روح كاند جي الله عندك روح موم لاكو يالا ني سجوتال كو يالا دا فا جيل روح لا فاليكو اك بوبام يالا نينا بيمو بيني ادمه با تيرال كو indi bopp jë bët bakkan nopp làmmiñ sikkim baat doq gannaaw dënn loxo biir tànk daf ko tëral ba mu ko tëralee aadama yëngatuwul lan moo ko waral li waral mu war yëngatu ñëwagul yàlla nee na bi ma bëggee mu yëngatu nag ci laa jël sama ruux man yàlla jëlee ko fa ma ko wala ji fu ma ko jële ñëw ni ko ko paw sànni ko ci bët yi lu mu xooleeti xam couleur ba sànni ko ci bakkan bi lu mu noyeeti xam xet ga sànni ko ci nopp yi lu mu déggati xam son ba sànni ko ci làmmiñ wi lu mu mosati xam cafkala sànni ko ci biir bi mu yëg xiif sànni sànni ko ci loxo yi sànni ko ci loxo yi ah, lu mu làmb daj ko sànni ko ci tànk yi fu ko neex dem yàlla wax ko sujjóotalal matière maanaam muy suuf déedéet daf ko ni sujjóotalal li ma laafaleeg moom muy sama ruux ma jël ko dénk ko ko ah ah sujjóotalal loolu du kàndangoog wala déet du kàndangoog yàlla looloo waral mu ni iblis sujjóotalal aadama moo tax ma ni leen koy àndal xam ko koy àndal seetlu ko ndax moom lañ lay askanale waaye de wolof nee na nitu yàlla ku ko sopp mu soppi la wala déet nitu yàlla boo ko soppee boo ko soppee moom dalay soppi noo meloon ak noo mënoon a mel nga ñëw sopp yàlla ngeen ànd ku la xool dina xam ni yow sa cosaan ak léegi wuute na kànd gaa tax ah gis nga gis nga gis nga ndox ndox lewet la cosaanoo ndox lewet la cosaanoo bu wexee bu wexee am na lu mu langool loola wexloo ko xam nga lan la demal ci sa robinet demal ci sa robinet nga ubbi duy sa paan nga tànq nga tànq guux mu neex lool nga jël ndox moomu yóbbu ko ci garabu xay xay nga teg ko ca taat wa bàyyi ko fa mu fanaan bu xëyee dootoo ko mën a naan dootoo ko mën a lan moo ko waral est-ce que cosaanam wex la walla dañ koo wàllu weex ga yéen ngi nan un rek man xam nga man man sama wax ñaare damay wax ngeen nan un un rek fekk man dafa am fu moy luma bëgg wax maa ngi ci kànd ba léegi de ma ni koy andal seet ko seetantal ko bala ngay and ak mom gis nga ba ci ba Seydina Muhammad ñewé ba léegi. Seydina Muhammad bi mu ñëwee ba léegi foo mës a dégg nit foo mës dégg nit tey jullit mu julli ci Muhammad wax looy wax déedéet julli ci yonent bi sallallahu alayhi Muhammad nga julli ci moom non non waxuma boobu de la ngay wax xam nga bu bu ñu nee bu ñu nee nit maanaam ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu tudd Seydina Muhammad nu nga ni Seydina nga ni sallallahu alayhi wasallam dëgg la <laughs> waaye julli ci si julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga koy ñaanal Seydina Muhammad da nga koy ñaanal lan ngay wax allahumma allahumma ngay wax salli ala sayidina muhammadin lan nga cay teg wa ala alihi loo cay teg wa sahbihi kànd gaa tax xam nga allahumma allahumma liif laam laam alkubeer mimara allahumma liif laam-laam alkubéer mimara allahumma mooy yaa allahu waaw allahumma mii ma ca nekk moo remplacé yaawu nidaa bi yaawu woote bi moo ko remplacé moo tax mën ngeen mën ngeen ni yaa allahu mais kenn du wax yaa allahumma wala lu néew bokk boo nee yaa allahumma lu gën a bari def nga footu naxwu yaa allahu nag mooy mooy yow yàlla yaa allahu mooy yow yàlla mais allahuma boo ko xasee wax rek mooy yow yàlla moom ak yaa allahu benn la miim ma moo remplacé yaawu nidaa bi اللهم ليف لام لام الكبير ميمارا يعني اللهم صلي على سيدنا محمد يا الله يا الله dool di xéewal sayyiduna muhammad mënun nga caayam loo cay teg wa ala alihi yàlla na nga defal loolu famiyam wa sahbihi ña daan ànd moom muy saxaaba yi lan moo waral nga julli ci sayyiduna muhammad ah wëlbatiku ñaanal li ko xéewal wëlbatiku ñaanalaale saxaaba ya lu ciy seen yoon kànd ga ñu ànd لول دو وخال ابو بكر عمر عثمان علي اك صحابه يتي اديو ييب ييب ييب كين كو تي نيك بوني وعلى علي بوني وصحبه دوغالي ناي غاني محمد رسول الله محمد رسول الله لو تي ديك والذين معه ah Maodo muhammadun loolu du alxuraan génn suuratu Fatiha muhammadun rasulullah loo ca teg walladina maahu mooy saxaaba ya ñi àndoon ak moom ñi àndoon ak foog ñu wax ko de walladina maahu ak ñi àndoon ak moom te mooy saxaaba yi ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum ñoom saxaaba ya de dégg nga taraahum ku leen may loolu rukkaan sujjadan yabtaxuuna فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كزرع سيدنا محمد أخرج شطأه أبو بكر فآزره عمر فاستغلظ عمر بن الخطاب علي بن عثمان بن عفان فاستوى على سوق علي بن أبي طالب <laughs> كزرع سيدنا محمد أخرج شط موي غرب أخرج شطأه أبو بكر الصديق فآزره عمر بن الخطاب فاستغلظ عثمان بن عفان فاستوى على سوقه علي بن ابي طالب موي خلفاؤه الاربعه سيدنا محمد ابو بكر عمر عثمان علي لن موين كومي كزرعين مانكي كاندو بليغي <laughs> muy ñeent moo tax gis nga yéen mbooloo mi moo tax damay faral di wax gaa ñi ma ni leen Seyduna Muhammad dégg leen baax li may wax Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay wax ni bépp kilifa bu bëgg mission réussir zéro faute ma ni bépp kilifa bu mu nag bu àdduna walla bu diine mu bëgg mission réussir fokk yàlla boole kook juróom yi ma bëgg a wax yéen ngi deg jurom ma ni bépp kilifa bumu beug mission réussir zéro faute mu doxal ba dem ñu ni eskey na mu meloon mu jël wetam jurom lu ngeen mako laaj mak mu bax mu yiw mu sel mu ñu rus démb tey soog a ñëw baax na ci kilifa neel benn ñaar góor gu ñeme dëgg di ko rattax kilifa gi góor gu ñeme dëgg di ko rattax kilifa gi ba mu naree sax xaw a rëy tuuti mu ne ko ngoyoo ngoy dinaa la wax dëgg wala wala wala wala bu yeboo wala bu yeboo ñu ñu teqalikoo ñetteel bi ñetteel bi borom alal ju tabe mission bi jaral lako <laughs> ñentel bi ndawlu sawar juromel bi jabar ju bax déggu leen ma de déggu leen ma de déggu ma de ha <laughs> ah. waaw ah. ah man daal wax naa daal dama ni mag mu baax mu yiw mu sell mu ñu respecté démb tey soog a ñëw góor gu ñeme dëgg di ko rattax kilifa gi. boroom alal ju tabe mission bi jaral ko ko ndaw lu sawar jabar ju baax Seydina Muhammad lii moo waral nekk na fi ba jóge fi ba jóge fi laa wax gongo zéro faute ndax juróom yii la amoon juróom yii la ko yàlla ba la ko yàlla booleeloon juróom yii mag mu baax mu yiw mu sell mu ñu respecté démb tey soog a ñëw kooku kan la Aboubacar si Siddiq waxal Aboubacar li sangara sangara da sangara dafa siwon lol ci arab yi lata lata sayyidina Muhammad di ñew ñu bëgg ko di ko naan di naan di naan Abu Bakar téré yi nee même bi mu nekké yéfer tok sangara mësula dugg ci gemiñam bañ ko laajee ni ko yow lu waral mësoo naan waxul diine de ngor la wax ak dignité ak xam boppam dafa ni li waral musuma naan sàngara lu may ñàkkuloo jom di muri sama kersa di ma teqaleeg sama sago du ma ko jege dégg nga lu may ñàkkuloo jom di muri sama kersa di ma teqaleeg sama sago duma ko jege xam nga ni kii bàyyi woon na xel boppam moo waral sàngara di ko yàlla di xaramal ñetti aaya la ci wàcce ak ba ko ñaari aaya ak ba ko xaramal ngir lan niñ ko tàmme woon bu yàlla tëboon tëb ni bàyyi leen sàngara kon ñu kon duñ ko bàyyi waaye yàlla def ko ndànk-ndànk étape par étape étape par étape bu wacce bi bi ba ba mu xam ni nit ñaa ngi commencé bëgg kii mu soog a wàccee nag aaya bi ko xaraamal mu ya ayuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali sheytaani fajtanibuuhu laallakum tuflixuuna innama yuridu shaytanu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi alxamri wal maysir wa yasuddakum an dikrillahi wa an alsalaat fa hal antum muntahuna ñu ni intahayna ba mu ci njëkk wàcce mooy wa yasalunaka anil xamri wal maysir qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnas waaye nag wa ismuhuma akbaru min nafihima sàngara ak loterie njariñ a ngi ci lor a ngi ci waaye lor gi moo njariñ li ñu commencé di wàññi ñu dem ba jëmi jamono am ku jiite ñu ñu ni Abdurahman ibnu Awf fekk boobu te xaraamalaguñu ko ñu mu naan di jiite eh, eh, saxaaba yi bi muy jiite eh, jàng xulaalu kaafiruna laa abudu ma taabuduuna wala antum aabiduna ma abudu wala ana aabidun ma abattum wala antum aabiduna ma abudu lakum diinukum waliya diin yow muhammad waxal yëfan leen du ma jaamu li ngeen di jaamu du ngeen jaamu li may jaamu duma ma jaamu li ngeen di jaamu léegi moom bi muy julli sàngara si wëlbati làmmiñ bi au lieu qul ya quli ayol kafiruna laa abudu muni qul ya ayol kafiruna abudu ma ta'buduna wa antum a'biduna ma abudu wa ana aabidun ma abadtum wa antum a'biduna ma abudu sàngara si mo wëlbati mo moo wëlbati bi yàlla wàcce aya ba ya ayuha alladina amanu la taqrabu la taqrabu salata wa antum sukaara xata taalamu maa taquluna bu ngeen nekkatee ci ci jamo ci xaalu mandité bu leen julli ndax du ngeen xam li ngeen di wax ñu bare bare di wàññi di wàññi di wàññi di wàññi mais taxul mu xaraamal ba léegi mu soog a indi nag aay bi nga xam ni moo ko xaraamal nag te foofu yàlla tudd Maodo foofu yàlla tudd fa baatu xaraam de gis nga yàlla gis nga Maodo yàlla buy yàlla buy xaraamal lu garaaw loo xam ni ku koy ku koy jëfandikoo mën na yàq mën na la yàqal yow yàqal sa njaboot yàqal sa quartier yàqal sa koñ yàqal sa dëkk ba nga dëkk yàqal yàqal sa réew yàlla bu koy xaraamal du indi baatu xaraam dafay woyof kon alxamru umul xabaayis sàngara mooy ndeyu ñaawteef yi di ko yàlla di xaraamal fan la fa yàlla indee baatu xaraam Cheikh Mouhamadul Moustapha daf mel new ci de te mooy ne dafa xaraam aaya bii moo sàngara يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس لا وخ يلا حرا نينتي حرام لا يلا حرام لا سانغرا لو مو برسك لو مسل لو مو ديفول سي لو باري رجس لا وخ موي بن من عمل الشيطان موي ñaar فاجتني بوه موي نيت انما يد الشيطان موي نينت رجس موي حرام بو نديك min amali cheytaani ñaar fajtani buuhu ñett innama yudu cheytaanu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi l xamri wal maysir wa yasuddakum an dikrillahi wa an salat fa hal antum muntahuna yàlla nee na sobe la xanaa xamu doon ni Maodo kuy naan sàngara ah kuy naan sàngara yaa ngi jaamu xërëm waxati naa de ko laajee sëñ Moustapha xam ne li ma wax firikat la tafsirul quran bil quran tafsirul quran bir ra'yi waaye tafsirul quran bil quran nag moom moom la moom la borom xam-xam yi moom la borom xam-xam yi euh, tànn ci ni bobu mo xawa ndax tafsiru quran bi reuy nga def ko ci rek ah, ah ah xam-xam ba meuna bari loolu rek waye ah tafsiru quran bil quran manam nga jël aya fi de ko aya ba mawdo jappal batu rigis batu rigisin sobe muni muni sangara sobe la isun moy haram bu njëkk gi li tax manila kuy kuy naan sàngara yaa ngi mel ni kii jaamu xërëm beneen aaya waxal bu indi baatu rijis rijisun la wax demal fajtani bu rijisa minal awsaani fajtani bu teet leen a rijisa sobe mu ñun luy sobe mu minal awsani min mi minu tabiyin la minal awsani ci la la mom xërëm ya kon ndax yàlla ni di gis te sayyidina muhammad neena na ñett mawdo ñett ñett duñu duggu aljana <laughs> muhammad de ko waxuma sayyidina muhammad neena ñett du ñu dugg àjjana salaasatun du yadxuluuna aljannata abadan addayuus wa rajulatu nisaa wa mudminul xamr nee na ñett ñii du ñu dugg àjjana abadan Maodo xam nga luy dayuus addayuus alladi laa yubaali بمن يدخل على أهله لنورا باي خلري الذي لا يبالي بمن يدخل على أهله موي ديوس يندب سلسل لنا كي دودو أجنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته responsabilité يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة خبر يوسف يثميلا موي كو خمني سيون نول كي سنجابون كي دوغا كي جين دو سيغ دو كونترولي سيون نول مودو كو كي دي يث ميلا nga mom sa keur tabax ko jur say dom nek def ci sa jabar ngeen ne ci bir Ah? nga toog nga toog ci ëtt bi am ku ñëw di seet sa doom xamoo ba xam kii kan la ah laajoo ko foo jógee ana diw mi ngi ci biir nga toog bàyyi ko mu dugg boo dee dox jàmm kay toogal ci sama wet wool ndey walla faatu mu ñëw ngeen toog nga wax nga wax li ngay wax ma dégg wala bu ba dee da nga koo bëgg waxal ñu ñu dox ko nga takk ko dem waaye ana nday mi ngi ci dugal wala sa doom wala sa doom wala sa doom wala sa doom ah xam nga ni cent franc nekkul ci poche mu gi da gàddu saagam yor mu gàddu saagam génn dem ñëw indi cinquante mille jox ndeyam jox baayam la ca des mu denc ko te laajoo ko fan la ko jëlee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii dafa xew ah, xam nañ ko ah yow saa sam nee na ku nii du gaa muy benn yow nee na góor guy jigéen jigéen lu di def yëfi jigéen geste ak i melo aki i melokaan nee du gaa jëna ñetteel ba kuy naan sàngara kon Maodo mag mu baax mu yiw mu sell mu ñu respecté dem tey soog a ñëw mooy Aboubacar ni Siddiq du benn ngoog laaj ma ñaareel ba góor gu ñeme dëgg di ko rab tax kilifa gi baax na ci de gis nga mën nga ko sañ nga ko kilifa gu ko yàgg dégg léegi mu tarxiis da naan mënuma ko sañuma ko kilifa gu yàgg dégg ñu naan la mën nga ko sañ nga ko yaa fi ne yow nangam ak nangam billahi wallahi tallahi ñee la koy wax dañu lay dugal topp la topp la topp la ba nga dugg ci kàmm ñu mën la gannaaw nit ñi ànduñu kenn laa wax dañ lay jey rek bëgguñu la dañ laa bëggal bëgguñu la dañ laa bëggal foog yàlla booyee làkkoon koo xam ni moo lay wàññi ndax nit nga nag bu dee loo xam ne ci yàlla la jóge moom bu yeboo wax yu la seen yoonu kenn newu ci waaye nag bu fekkee nag maanaam ak doomu aadama la sayyidina Muhammad doomu aadama la dañ ko war a wàññi defal lii defal lii defal bàyyi lii nangam ak nangam lan la lan la fa bimaa rahmatin minallaahi linta lahum walaw kunta faddan galiza alqalb lan faddu min hawlika faafu anhum wastaghfir lahum waaye nag wa shawirhum fil amri yàlla wax ko fil umuri de bu ni woon al umur la laalal fii bàyyi fee waaye al amr ismu jins la lépp luy problème rek boo ca duggee te xamoo noo ciy génne diisoo ci ak ña ngi ca war a diisool amri la ko waxu ko fil umuuru dagam Seydina Muhammad la yàlla wax loolu waxuma la ak keneen foog ñu di la di la wax jàppal bàyyil defal lii jaaral fii nangam ak nangam waaye naan la sañ nga ko mën nga ko rek lu la neex defal e waay doom ndaw sàmba <laughs> baax na ba nga dugg ci kàmb ci ngay ci ngay xam nit ñi kon góor gu ñemee dëgg di ko rattax kilifa gi mooy Amar ibnu Xattaab Amar ibnu ngay dëgga Amar ibnu Xattaab ki seytaane ragaloon Amar Iblis da koo ragaloon ndax dëggoom ak fullaam ak faydaam ak ragalam yàlla maam alxaaj Abdul Aziz dafa mës a yedd benn njabootam ni ko diw waxal ak ñëpp waaye bul déglu ñëpp waxal ak ñëpp waaye bul déglu ñëpp àndal ak ñëpp waaye bul yóbbaale ñëpp wax la de waxal ak ñëpp waaye bul déglu ñëpp àndal ak ñëpp waaye bul déglu ñu wax waaye bul bul yóbbaale ñëpp Omar ibn Xataab góor gu ñeme dëgg laaj leen ma ñetteel ba lan laa waxoon ci ñetteel ba boroom wërsëg bu tawee nangu koo def ci mission bi mu jaral ko ko xam ngeen ki ma bëgg a wax sa turandoo <laughs> Ousmane <laughs> moo moo daan moo daan dog buum gàcce yi de xaale alalam jaraloon ko ko lu ne mu def ko lu ñu ni nii rek mu jël alalam def ca bilaay laa wax yàlla rus ko bi rus ko ñëpp rus ko ya yonent bi sallam may ko ñaari doomam yonent bi sallam may ko ñaari doomam moo tax ñu tuddee ko Dun Nuurayni gis nga saxaaba yi kenn ku nekk am nga tur bu ñu la tuddee sa ngénte waaye sa a tax sa mooy tax ah ah euh, nañ lay tuddee dafay dem suul sa tur bi la tuddee sa bisu ngénte foo déggee as siddiq ki dëggu ba pare dëggalaa ki dëggu ba pare dëggal nga ni Aboubacar as siddiq foo déggee al ki teqali dëgg ak neen Omar euh, euh, turandoo Omar Omar ibn Xataab waaye du nuuray nii du nuuray nii ah du nuuray nii ruqayya umu kulsum ñaari doomi sayduna muhammad ruqayya la ko may ruqayya faatu moo tax Ousmane fekkewul badar ndax boobu ruqayya daf faatu daf feebar mu di ko mu di ko mu di ko faj yonent bi ni ko faj ko ba mu wér wala yàlla def la ko soob ku jógee badar bu ñëwee nga am yoolam moo tax Ousmane fekkewul badar boobu mi ngi mi ngi faj soxnaam ruqayya ruqayya faatu nag ci saasi yonent bi saa sallam jël ummu kulsum rakk ja jox ko <laughs> waaw jox jël ummu kulsum rakk ja jox ko moo tax ñu tudde ko du nuréeni yonent bi saa sallam ni bu mu amoon fanweeri doom ku dem Ousmane ma jox ko ca des kookoy borom alal ja ba pare tabee nag ci alal ja lool nag waaw lu ñu nii rek mu ni ay ca ñeenteel ba lan laa waxoon ndawlu sawar ah, gay ndega nak gay ndega gay ndega kan la كرم الله وجهه فودي كرم الله وجهه يقسم اعناق العدا ويسول علي علي كرم الله وجهه وعن عهد ربي ما أراه ذهول أكرم بحيدر حيدر حيدر خنا خمولني ما وخلين بين السكرتاي حيدر دو سانت دي نو دو سانت حيدر دو سانت لاج لين ما لاج لين ما حيدر دو سانت جفله melokaan la gis nga gaynde gaynde njàmbaare ga ma ni gaynde njàmbaare ga moo waral dafa bari tur bokk na ci ay turam xaydara ñu bari asad lañu miin ñu bari asad asad muy gaynde waaye bokk na ci turi gaynde xaydara xaydaratun karaaratun nga di ngay diggaa Aydara Karara Haydaratun Kararatun Haydaratun Kararatun na ngeen ko jàpp tey Haydaratun mooy gaynde Kararatun buy àkkaakon Haydaratun Kararatun ku ko xamul woon na nga ko xam tey Haydaratun mooy gaynde Kararatun bay àkkaakon gaynde gaynde ni muy xeexe mooy kar far kar far kar mooy mu àkk far mooy mu daw dawul dawul de dafa wutiwaat doole jàmbaar noonu lay xeexe jàmbar bu yoree xeejam bu dóoree bu dóoree day dellu gannaaw dóoraat dellu gannaaw mooy kar far ndaw lu sawar Ali ibn Abi Talib waye nak bu mu juba nak jabar ju bax ha ah, bobu bax na ci de ha ah, jabar ju bax khadijatun sakkanat bil qalbi qailatan lam yuxzika allahu fi darin la takimi جاءت لي ورقة تحكي ما رواه لها وقال الناموس موسى ذاك فابتسمي وجزيا أبدا xam nga jabar ju baax ju yiw dafa baax ci kilifa Seydina Muhammad juróom yii moo taxoon mission réussir mag mu yiw mu sell mu baax mu ñu abu Aboubacar ni Siddiq góor gu ñemee dëgg Omar ibnu Xataab borom alal ju tabe Usmaan ibnu Affaan ndaw lu sawar Ali ibnu Abi Talib jabar ju baax Xadijatu bintu Xuwaylid mu fin mission mission mët kuy kilifa nag war nga am juróom yi li tax nag ma waxee nii li dess bareetul li tax ma waxe ni rek la wax ki ànd kànd al mar'u maa man ahabba sayyidina muhammad moko wax wa man yuti'i allaha war rasula fa ulaika ma alladhina anama allahu alayhim min an annabiyina was siddiqina wa shuhadaai wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa al quran la ko àndal sopp ko bëgg ko ni ngeen àndi fi ci aduna non ngeen di ande barzax non ngeen di ande aljana kon ka ngay set lu ko de han sayyiduna Muhammad ñi àndoon ak moom ñëpp ñoo nga ak mom du du du ñoo ci seen aljana ya amul sahabu bu dugg aljana bu dugg sawara amul amul sah amul amul sahabu bu dugg sawara amul alquran la لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وكلا وعد الله الحسنى <laughs> أخرى لا سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وكلا وكلا وعد الله الحسنى الحسنى موي اجنا الحسنى موي اجنا القران دا للذين احسنوا الحسنى موي اجنا وزياده غيس يالا يالا نينكو غيس دي مودو يالا نينكو غيس واي دو في دي دو في نك ناخ سونو گتي مودو سونو گتي سونو گتي يالا بريباري وكو بور مو غيس كو suñu gët yi yàlla préparé wu ko pour mu gis ko de waaw fii la fii la fii man man man man maa ngi a maa ngi àdduna man yow man <laughs> ngi nga ma ne man bu man man man la suñu wax préparé wu ko pour mu gis ko waaye nag ëllëg yàlla dina préparé yàlla dina dina defar yeneen kanam xotti ci ay gët yoo xam ni maanaam yàlla daf koy préparé pour mu jàkkaarloog xar kanamam nga am na bu ëllëgee yàlla yàlla maanaam àdduna lañu ñu dul gisee yàlla ndax suñu gët yi yàlla préparé wu ko pour mu gis yàlla waaye nag ëllëg yàlla dinañu defal kanam dina am ñu mu defal ñu mu defal kanam yoo xam ni daf koy xotti ay gët yoo xam ni maanaam dinañ mëna a xar kanamam ga ndax alquran la wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira alquran la fofu fofu moom ci le téere yi waxee ni kon ëlëk am nañu yàlla di baxé ba ñu jàkkaarloo xar kanamam ga waye fi mom fi mom mawdu fi nak mom ndax nak lu yàlla mayu musa du ko may keneen walammaa jaa Muusa limiiqaatinaa wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arini anzur ilayk qaala lan taraanii lan jooju lan jooju mu aqat la du mu abbad <laughs> lan jooju mu aqat la du mu abbad mu aqat mooy jamono sàngam ba jamono sàngam dooma gis jamono sàngam ba jamono sàngam dooma gis waxu ko pour toujours mu àqat mooy fii léegi yaa ngi dund doo ma gis ndax sa gët yi préparé wu ma ko ak at ba pare attanoo ma yàlla dafa ko ni attanoo ma lan ah ah yaakaar naa ko nag dina ko xanaa ëllëg dina ko war a gisi waaw waaw waaw waaw dina ko gis dina ko gis ndax yàlla mën def Moussa bokk ca ñamu xottil gët ya euh, préparé ko pour mu gis ko waaye du fii lan taraan yi lan jooju mu àqat la du mu abbat maanaam fileeg yangi ngi dund doo ma gis mu ni ko mu ni ko yàlla ku baax la yàlla dafa ni Moussa yàlla dafa ni Moussa xam nga wala maa jaa Moussa li miiqaatinaa wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii anzur ilayka qaala lan taraanii walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraanii falammaa tajallaa rabbuhu liljabal jaalahu dak dakkan dakkan wa xarra Moussa sa'iqan falammaa faaqa qaala subhaanaka innii tubtu ilayka wa ana awwalul mu'miniin qaala yaa Moussa inni stafaytuka ala nnaasi bi risaalaati foofu la ko récompensé nag foofu la ko bañ a murus bi risaalaati loolu na la doy gis ma gis ma bàyyi ba ëllëg rek bàyyi yow bi risaa yaa Moussa inni stafaytuka ala nnaasi bi risaalaati wa bi kalaami fa xud ma aataytuka wa kun mina shaakirin <laughs> Moussa dafa dafa jékki-jékki dégg dégg baat dégg baat baat baat baatu yàlla baat yàlla moo xam yàlla moo xam ne dégg baat euh, euh, jékki-jékki Moussa ni ko mu dégg mu dégg ndax musaa mooy kalimullah Moussa mooy kalimullah moo wax ak yàlla mu jékki-jékki dégg benn baat mu ni mu wax ak yàlla wax ak moom mu ni yàlla man de baat bi ma dégg dama bëgg jëmm ji <laughs> baat bi ma dégg daal. dama ba gis jëmm ji yàlla ni ko ah gis googu nag mënul nekk mu ni ko lu ko waral mu ni ko dang ma àttanul yàlla moo ni Moussa àttanoom yàlla yàlla ni Moussa man xañuma la sama bopp bu doon sama sago nga gis ma mais àttanoo ma ñu bari xamuñu secret boobu maanaam yàlla xañul Moussa mu gis ko mais Moussa daf ko attanul yàlla ni ko man waxuma man xañuma la nga gis ma bu doon sama sago nga gis ma man moom awuma ci problème waaye danga ma attanul Moussa ko lu waral nga ni attanuma la mu ni ko xoolal doj wi montagne bi moo la fuuf gën laa dëgër sut la sax ci suuf yow ass as kii nga rek waaw xoolal xoolal mu ni ko bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma muree samay kiiraay dóor ci la ma ci dóor ci doj wi nga xool ba xam ndax dañ dina résister wala bu résister deful dara nga xam ni mën nga ma gis ayca yàlla def la mu def dóor ko ca doj wa doj bi dakkan dakkan mooy dafa maaseeg suuf dakkan noonu lañ koy firee dafa maaseeg suuf maase maase doj wa ni muy rëy rëy rëy ba ko yàlla ba ci yàlla dóoree la mu ca dóor dafa maase maaseeg suuf Moussa ma fële moom yoonam newu ci kenn kenn defu ko dara mu xëm bu yàgg mu xëm bu yàgg bi mu ximalikoo mu ni yàlla tuub naa maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu ci li ma la laaj lu mënul a nekk loo tax Moussa ni inni tubtu ilayka tuubul tuubul ngir bàkkaar de dama tuub ngir la laaj lu mënul nekk te waruma ko def yàlla ni ko mais man Moussa yow yow li ma la defal doy na bàyyil ba ëllëg nga gis ma yow adduna bii defal naa la loo xam ne nii ah, wax na yow te waxuma ak def naa la ngay yonent waaye santal waay ah, te dem sa yoon <laughs> fa tabaarakallaahu li ma bëgg li ma bëgg wax foofu nag mooy léegi sëñ Babacar man tey ànd kànd la la laa la waxtaanal ah kànd laa la waxtaanal ah waaw yaa ko moom nag xam nga nag maa ngi ni woon na ngeen ma na ngeen te am fu ngeen teg seen baaraam bi ma waxee ci ah kànd kànd kànd ba wër a wër yonent yëpp. léegi léegi mbay léegi mbay dama bëgg nga wax ma nag yow non déet mbay bu ma dog déglu ma dama bëgg dama ni dama lay laaj ba xam ndax yow sa kànd ak Cheikh Sidi Mouhamed Mansour réccu nga ko wala réccu woo ko wax ma rek <laughs> mbay mi ngi guddi rek. ànd daal la wax tey tey kon nag ñu xool ba xam daal. ayca. sama ànd ak euh, Mouhamadou Mansour si borom daara ji du si mën a li ma ci mën a wax dafa bëri tey toujours mu wax ko ndaxte bi may ànd ak moom. boba dama dama dama son kon ya ngi ci li ma ya yang ngi ci billahi ah kandi la daal waxtaan anu na tey. waw waaw kay waw kandi kandi dama son trop am ay jafe jafé yu metti nek France nek Espagne nek Italie di liggéey lu ma liggéey mu yaq ma jënd auto def ci 20 millions dem France ni satte auto ba. ma ñibbee seeg samay loxoy kese oto bee seq leer na alaaji Moodu mi man demaat di testé si si ba amaat oto defaat ci marchandise vingt millions demaat France ñu nangu ko ma ñëwaat samay loxoy kese man dawaat di testé si di testé si ba amaat oto dem Autriche jënd fay mbassin jënd fay ay ay cocaïne tiise cocaïne jigéen yoloor dix millions ma ñew def ko ci auto bi ñu saccat auto bi muy ñett yoon ñett yoon waaw mu dem presque bu xolé day mat presque bobu xamaguma ko ah, xamaguma ko motax ma leen wax fi mu commencé ànd gi kan- ànd gi fi mu commencé la leen bëgg léralal ay kan dégg ma ñew sonn ma sonn waaw mo wax nga ko légui loolu la bëgg égalé lu lepp mu égg mu ñu ñaan ma joge fa ñew gaay di Joy, ñep di ma sama ben xarit bu ñuy wax ibrahim di Murid, nama tega dem seeti muhammadul Mansour ya ngi deg di Murid Sadik wax ma ma daal di dag pass joge Espagne ñew bi ma ñewé ma and ak sama ndjay Ousmane Assane badiar papay wada mais mu indi ma tiawon bo ma ngi doga ñew tiawon xawma kuy señ Mansour di ko laajte ñett am ñetti fan këram di tëdd ci saal ba pour bëgg koo gis rek mënu mu fexe ba gis ko ku ñuy wax Mansour Gassama dugalal ma moo tax sama histoire ak suñ Mansour si dama koy wax toujours dama danga nga ciy bokk des na la ci tudd ci histoire bi mu dugal ma ma dugg parce que benn délégation la àndal ba ma xam ma dugg bi ma duggee gi délégation bi génn ma raam ba àgg ci bi téye loxo bi daal di koy lii ma fi ma jaar yëpp ak coono bi ma am ak jafe-jafe yi ma am ci Europe lu ma liggéey mu yàqu ci la ma daal di ne ma noo tudd ma ne ko Babacar mu ne ma kuy sa yaay ma wax ko ko mu ne sa papa ma wax ko ko mu ne ma demal ba ëllëg nga fekk ma xombal ma ñëw xombal mu ne ma fekk ma mbooro ma ñëw mbooro mu ne fekkaat ma tiyaawoon parce que mi ngi may seetlu ma xam li may wur gi jaral dama ko war a jëru ko li ma bëgg jaral lu ma ko wala jaralu ma ko ma ñëw mu ne ne ma demal indi un million man ah papa man damaa aw ma dara ñàkk tax ma ñëw si yow li ma li ma am lépp yàqu na yoratuma dara mu ne ma nag euh, tooba boo ci jiyul dara du dara du ci sax digal ah, dem ma daa dem lijjanti cinq cent mille indi jox ko mu ne waaw kay tooba boo ci jiyul dara du sax te damaa bëgg mu sax dama bëgg a defar sa affaire waaw daal na ma demal fële ci bitig ba nga jënd puso nga ñëw ma ñëw cat dong la wallaay laa ma daal di def noonu dem jënd ci ba puso di ko jox ko mu ñëw li muy ñëw defal ma ko na ma delluwal da nga am xaalis da nga gudd fan billaahi yaa ngi ma dem cëpp Espagne eh, ndaw ma doon jaay produit bi Madrid moom ma jëkk a woo na ma kaay ma sarse la ci conteneur nga yóbbu Sénégal jaay ma wax ko alaaji Modou mi mu ne ma ah yow yaa ngi ci am problème ba la bëgg ca dugaat ma daa di arrière ma toogaat ba mu yàgg mu woo woowaat ma na ma léegi damaa bëgg nga ñëw ma jox la li ñu la nanguloon vingt millions yi ñu la nanguloon ma jox la ko nga yóbbu ko Sénégal jaay ko danaa la ko dugal ci conteneur ba ca Sénégal nga dem poor nga jël ko fii ci port bi laa ko génnee jaay ko ma ànd ak Sidi Fall jëkkëru Ndeye Diagne bii ñu jaay produit bu ba jeex Touba Dakar mu doon vingt millions ba ma ko jaayee mu nekkaat quarante millions waaw <clears throat> ma dellu été am vingt millions muy soixante millions. ci jamono booba. ci jamono booba. jamono booba waaw. ci laa daal di ñibbisi. waaw su ma ñëwee ci laa étage. étage dalal ko ca waaw xam nga kon sëñ Mansour fi ñu jaar yëpp man ak moom mënuma sax toog fii di ko wax lépp lépp wallaay waaw waaw kan xam nga waaw waaw Birama ak maam Ngoné Ndoye su gay na yëngoo dégg gërëm la salu yëngoo mar bilaay Serigne Mansour mhm. mooy Serigne ba man dib Serigne ndeysaan Serigne bi nee na ngeen toppandoo Mamadou moo jara way mhm. moo sell diine te moo xam yàlla moo yëri may Serigne Mansour yow say ngëneel sax na jaajab bay nga bay mu rafet sa sas wi booyul da far jàll sas wi di bay bilaahi Serigne Mansour loo jëw loo jëng doo bay loo war a يا قال يا قيل يا قدور يا جفتي ومن يبصر بشيخ سيدي محمد المقصود منصور منصور اي منصور سيامة خم ci dundu ak diine ak dee lépp yaa ma taway ci dara jee dina ñee ko bokk yaay ki ci gën ci tool yi ak téere yi yaa jay waaja yaa selli may sëriñ Mansour nga toog ci laawoon wacculoo laaya dégg nga wacculoo addiisi booba tey muy dox boo waxtu ba tey ñii di la seeti ñii di la laaj si ñii di nga si kenn di jàmm bu ñam fi yow soora dootul dellu yaa selli may dégg أيا أحمد المنصور وكوي نجل الخليل نجل الخليفة إيه فلا سلت منصورا لدى كل جدي نسال جريت والله ولا تي منصور كهوال نك إيه نك موت فوجب فوق أنا موت نك أكو كان يو أك نك فلا سلت منصورا لدى كل وجدي أسرك يا منصور ندى الخليفة لدى مولد المختار بدر الأهلة من سيد مالك بقلب سباي الحاج مالك من حاج مالك إيه، يبين سالك يوم الندائي الحاج مالك حبه مالك ما لم يمالك للكرماء الحاج مالك حبه مالك kokoy sinaade maliki sotturoon woo waaye usuloo woo ko kokoy mawɗo wala qad kada bayna suyuqi bukko yalala ulɓe surngamniya bukka waw surmbi dokkule waay haji abdou moodi sa baay nena mangi jox ma la waay mu bind ko waaw kullu ruwi fi annabi asa ko wax xaaji abdu li mu la jox te rasul wéyal na ko waaw tey yaay ki ko moom yaa di ba ku mu na sama ku mu neex li ku bañit defal na ko daara jàng yaaya fa fa teew daara jàng ku fa ñëw takku mbay si timbi na waay doom ju si gël ko suuna mee moyul ndigalam daara jàng kenn du ni loo ko laaj du dañ masala leeni mbay si teggiw ko leenu mbay si teggiw ko kon werente kay amatul kon weretul

ba waral ba lii ba lii ànd bi waral ko ah. foo ñu wax li ko waral lépp ak fi jaar ak moom parce que tim day yokk pas-pas ci koo xam ne si ni jégg na ko parce que euh, nit dafay am loo xam ne si ni bu ko amee pas-pas moo koy may waaw yàlla dama sama dama damay am sama pas-pas moom ma may lu bari si moom ndaxte moom Amar Diop a ngi nii toog sama diggante ak sëñ Mansour dara ump ko ci sëñ Mansour su ma soxlaa Omar Diop mi lay woo wax mu woo ma mu woo mu jël si mu mu wax ak man ma jox ko ko benn yoon amul ci kii maa ngi Omar lépp xam na ko fekke na ko waaw sin ànd nag man ak moom jaayante la jaayante la ndax dañu mas am benn suur ñi ñi daa ñu dajale daayira ñu am ci ca Espagne Marbella ñu dajale fa xaalis un million un million boobu noonu ñu xaaj ko yóbbu leen li faas siyaare ji ko faas cinq cent mille bi ci des ñu indi ko jox ko ko biñ ñëwee fii nii hmm? waaw waaw day dem waaw après dama ko expliquer rek mu pare waaw mu jeex waaw li waral ànd bi rek moo tax ma koy expliquer mhm. loolu la daal te dafay jar nga wax ko pour nit ñi xam ko ah di tax nga àndandoo ak sëñ Mansour si ak ki nga doon àndal mooy kan ak ki nga doon àndal jar na àndal wala jëroo àndal parce que moom daan wax naan ma nit yàlla booy ànd ak moom na yàlla tax boo koy jox sa alal na yàlla tax boo koy xam na yàlla tax tax tax yooyu mooy tax nga mën a jëriñoo moom la ma daan wax waaw kon loolu loolu moo tax mu loolu tax tax yooyu nag ma jëriñ moo ma indil lii. dëgg la moo ma indil mu ñëw sama kër yenn fa ba ngoon jox ma kursam na ma loo ci ñaan yàlla nangu ko loolu rëy la si man ànd ak ay ñeenti xalifa ñëw fa ak sërif ak yëpp ñu ñëw kër ga ah ba ñuy ñibbee itam ah ma def sama jaayanteeg moom jël la ma amoon lépp jox ko. jël sama lal bu jar 2 millions 500 jox ko jël sama 3 millions jox ko ñom andalon ku ne ma jox la 500000 cent mille mu ne Babacar xanaa da nga daanu mu ne ko daaru ba sax bo mo meuna a sama bop wala ma jaay kër gi sax jox la ko dama koy jaay ndax jaral nga ma lu ko kon lolu jaayante mu koy waral dama bëgg nag maanaam talib yëpp di nango di jaayante parce que bo jaayante wul do am dara waaw lu way am rek da ko jaayante mais boko jaayante wul do ko am ak sa serigne saa daana wax naan benn sëriñ bu la ne mën naa laa jëriñ te doo ko ñaqal te doo ko ñuqil la am kon sëriñ da nga koy ñaqal wala nga ñuqil ko moo waral jaayante kon xale yi dama bëgg ngeen di jaayante ak seen sëriñ si lu ngeen am joxe ko bul ne yoruma dara loo am joxeel rek bu yàggee da nga am insha allah rabbi intiqtisami ba ma ca barasti ko xombal laa dal rek barasti ku rek ci pelu daanu ji cheikhuna tijaani cheikhuna tijaani Seexuna Tijaani Seexuna Tijaani Seexuna Tijaani sama mbaaba kër si nee na yaa raaxilan mutasaabiqa rutbaani papa naxwal jinaani rawxi wa rayxaani Seexuna Tijaani أديب الكتب من أسير علاقة قاسي الهواجس مدة الأزمان دومني ويربايا أدي البيانا لأهلها متصارفا بالوافدين وجميع السكان شيخنا التيلاني لا تقصرا نتوسلا وتضرعا وترفقا بالعين والتيجان شيخنا التيجاني سلمى وسله زيادة بتقربين كذا بالغرابة ساحق الأوطان الصافي والمرجان شيخنا التيجاني يوحم بلد تغي الورى بتراين من كل نائم ناظر والآني أمني في قلبك شيخنا التيجاني وتشعشعت أضواءها وشعاعها وتعم بالأقدار والبلدان كم شاعتك عين الحقيقة عين ووتك صفا عن فتحي النوراني هذا الذي إنسان عين حقيقة متصرف بحقائق العرفان هذا الذي قد نال رضوان العلي بمنزل الآيات من قرآن شيخنا التيجاني هذا الذي كان الممدد وحائلا شيخ تجامي بيت الولاية شيخ تجامي بيت الولاية شيخ تجامي بيت الولاية شيخ من فاتح البيباني بابا وحوا بمرضاة العليم بسمعه من مقتضى القرآن والفرقان